maa ngi lay fay. Tapha ñu gëj laa gis ñu ñëw open press Kewel fekk la fi. maa ngi ci jàmm maa ngi entraîné maa ngi samay entraînement comme ni mu waree jàmm salaam rek. ñu ngi laa gis bi saison tijjee ba léegi daanaka saison bi xaaj na dégguñ sa combat gisaguñ la lan moo waral lool. waaw ñu ngi dox samay combat comme ñëpp ah parce que gars yi du kenn ku ci xamagun combat aw ma combat surtout. non dama laa gis boo yi bari nañ fi mbër yi bari nañ mais mbër yu mag yi kenn amagu ci combat koo mu ne dañ may daw dañ may daw te tafaatin tafa tafaatin non ñoom ñoom ñoom ñoo wax dañ leen daw te tafaatin ñëpp dañ ko fee bàyyi ñu woon gis sa combat boobaak léegi gisuñu la dégguñu la mbër ñooy daw sa avance wala promoteur ñooy egg kenn dawul sama avance dafa am lu ñuy xaar rek bu ñu paree dinañ ñëw incha allah te ñoom xam na ñu ngi liggéey maa ngi liggéey yàgg-yàgg dañuy daje quoi amul leneen ñu gisoon sa combat Ama Baldé demoon daanaka ba bañ a taxawoon na mu jékki-jékki yàqu est-ce que ñoo ngi dox koo xamante ni nii yow yàgg moom combat jànk la combat bu neex. non loolu moom du ma ci wax dox nañu ko yàqu na surtout jàll na xam nga mu ngi ci leneen maa ngi ci leneen ñu ngi may contacter ak yeneen mbër mbër yi fa amul combat bari nañu xëj na ñu ngi may wax. la dëgg dox nañ la sa combat yàqu. bari nañ bari nañ. mu ngi ci biir ma ñeneen ak ñeneen quoi. ñu gis la tey sa sa booy sa rak sa lépp di waaw Kewel sama rak la suma frère la ñoo bokk deret comme ni ñu koy waxee c'est normal ma ñëw tey fi maa fi waroon jiitu sax mais dafa am sama beneen frère bu ma doon préparé muy ñaagas fara jóge nii xam nga ma koy ñaanal mu am ndam moom ak Kewel yëpp parce que même suur la quoi kii mu ngi dem bari Bargny kii arène nationale ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu am ndama ah. oui ñu gis na bawol bawol yi léegi dañoo booloo nekk benn lii daa woon am mu am lan mooy secret bi. bawol bawol yi dañoo mës a booloo nag nekk benn. waaw non gis nga bawol mbooloo ak beneen bawol bi. lan moo waral jaxasoo non mësul mësul am différence. xam nga ay nit bu ñu bokkee ci àll ba ñëw Dakar rek xam kenn mënu leen xaajale quoi. ñoo mësa nekk benn ñoom ñëpp mësuñu am benn xaajaloo quoi. jaajëf kontaan naa ci. tànk jaajëf. dem jël ko man défaite ak victoire amul lu muy kii ci man loolu du dara. ñu dégg su njata hmm? mu ne Kewel jaaruwaay la ci moom ku daan. ku daan euh, Saalum Saalum daan Pape Sène Kewel warul a jaaxal ci làmb. ah day wax lu ko neex rek Kewel jaaruwaay la bu le 29 dinañu xam ndax jaaruwaay la wala moom mooy jaaruwaay. nee na da nga jóge ci defet bëgg a génnaat sa defet da nga ciy delluwaat. moom moom mais laay yóbbu ci defet nag dugg naa seen écrit am lu ma fa def daan gram laay bay moom laa ciy teg. nee na bi ngay daan laay bay laay la te moom xale la. mais loolu lépp du ci dara laay béy bu fekkonte ni daa magat du jël sama avance magat yaa ngi ca kër ga bërewuñu kuy takk ngem ku ne doo mag ku magat da ngay bàyyi waaw. léegi ñu gis sa doomu nday Bour Sine bëre ah, kii 100 euh, pour bi ñu ci bëre yëpp seen premier grand combat dañu ñaar nga war a nekk troisième personne bu war a bëre ji. waaw loolu lan lay def ci yow. waaw loolu lépp jàngat la rek di ci sant yàlla bu baax. waaw di xamal ñoom ñi nga xamante ne dañoo bëri te ñàkk man génnuma leen génnuñu ma xam nga yàlla mooy dogal yàllaa leen xañ te bu beneen yoone yàlla mën na leen a may ndam maa ngi leen di ñaanal seen defet boobu doon defet bi mujj combat bii ma lu mu doon victoire ci man ma jox leen ko renforcer leen. ndax loolu def pression ci loolu man aw ma pression lamb man bëre dafa nekk sama yaram aw ma benn pression ci lamb ma dégg sa combat ak Modja. à la dernière minute ma am lu ma ci dégg. ma bëggoon ci lool bu fekkee mën naa si am ak leer leerlu. non bu fekkee ay détails la moom. cooji bi nun bàyyi noonu rek. combat bu jàll moom. jàll na rek quoi. non dafa am loo xam ne dafa nekk ci suñ suñ bopp yi ba léegi si yi di ma ko laaj loo ñu gis la contre Modja bëre woo xeexoo dañ doon gis ngay bëre di xeex sa combat. ñu ne daa am lu nekk si combat bi dernière minute. ñu bëgg nga leeral nu lool. non loolu lépp lamb la rek. lamb la rek lamb moom da ngay lambaatu rek waaw xëy na yàlla moo dogaloon ma ñëw suur boobu béréw ma kiiwu ma mais du dara. suñ jota nee na 100 pour cent bool bi da koy tas. suñ jota day wax ko neex rek si jota moom maa moom ci biir géew bi day wax lu ko neex. et puis am lu ma yóbbante maa ko gis mu ne ma seex maanaam mu ne boo demee nel kéwél nañ samp jaaga maa moom. waaye si day wax lu ko neex si jota xam nga ne bu waxee loolu day wax lu ko neex suñ jota du samp jaaga loolu moom ay wax la rek. waaw léegi suñ jota bu ñëwee samp jaaga nag. bu sampee jaaga ma sampal ko jaaga ñu wëri jaaga boo xam. waaw ba leer bilaahi bu bëree mat bëreeg moom daan ko suñ jota fi ma jaar ci bëre jaaru fi man damay dem bo Niger Côte dem contact ak mbëri Niger yi suñ jota mos da def loolu. nee na benn bët nga am ci falan ngay jaar am na nu mu lay tegale doo dem. loolu lépp ay détails la li ma daan ci lamb. bot moo ci gën a tuuti. Mhm. kele bu ne ah. daane naa ko lam ñii dama leen a song ñii dama leen a song la ñii nu ne laa leen def xëy na loolu la gis. léegi ñuy wax ne waroo jël su njata loo leen def. pour loon war maa jël su njata. ñoom nee nañ nga def ci làmb waroo jóge ci mujj jël su njata. combat combat risque la boo xam ne mooy lool lamba saturé rek boo toogee di xaar at yi moom bàyyiwu fi te combat yi gars boo toogee di xaar. ñu bëre daan dootuñu la soxla il faut nga bëre ñun dañuy compétir rek. xale la su nee na ki mu war a bëreel bawal du yow. man nag damaa xamul njool mi la xaw ma kuy wax. <laughs> si jota day wax lu ko neex rek. wax dof la rek. bàyyi ko bu bu bu jógee ci man. dina xam ndax ku mu war a bëreel bawol du man wala déet. nee na seen combat boo nangu woon bëri ngeen bu yàgg. nangaa daw baa ma amatoo foo jëm defee sax nga jël. Seydina Mohamed xam na ne maak moom ku bañ combat bi yàlla bu la yàlla may ndam. moom moo ma doon daw depuis ca Mama Lamine ba tey saa bu ñu ko waxee man mu bañ. esaay mu toll ni nag am na lu ma koy lancer lu ndaw tiire nay balam yaakaar na ne mooy loolu. mais ren lu mu jëm-jëm suuf am na bu ko gën a féete suuf. tiire nay balam c'est-à-dire tiire nay balam ci départ bi loolu moom xam na ma ko waxee dina comprendre. mais man comprendre moom dina comprendre xam na li ma ko wax. tiire nay balam. tiire nay balam ca départ ba. mais dina xam ne reen lu mu suufe suufe am na bu ko gën a suufe Kewel ak Sunjata ku dàq bëre Sunjata damay moroomam ci bëre maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex maa ko ëpp fit gën koo ñeme sañ-sañ waaw yow mystique daal moom dañuy ñaan rek kenn xamul boo nu xamoon fu mystique bi nekk da ngay toog ba suur ba nga dem jëli ko bëre daan dégg naa bambara la de kan may bambara de xam nga ne séeréer a ko mën séeréer du moroomu bambara nga amee leen bor war leen ko fay nga ñëw jël suñu yota est que yaakaar nga génn ci combat bi ak suñu yota jógee. incha allahu rabbi ni ma ciy génn victoire bu neex laa ciy génne bu ma ci amut woon yaakaar duma ci dugg. waaw waaw. ñu gis la Bawol bi mu commencé boobaag léegi combat bi mujj bu sin jógee ji la ci defee ngeen war a dellu si waat est yéen ngi waaj bu baax maanaam bare ngeen fi toll nii. waaw ñu ngi waaj comme ni daa waaj rek waaw Bour Sine sama doomu ndey la sama xarit la ñoo yaru wandoo ba mag ay détails yu sew nag mais loolu lépp garaaw dinañu ko dinañ ci waxtaan mu kii quoi sama doomu ndey la. waaw maa ngi koy ñaanal yàlla bu amaatee beneen combat daan ñun combat bi ñu jublu yàlla may nu ci ndam loolu mooy affaire fi mu toll nii. ñu gis Tapha Tine jóge fi léegi ñëw ñaax la. Hmm. est-ce que yaa ngi yaa ngi yaa ngi koy yaa ngi koy motiver pour beneen yoon mu mën a ñëwaat wala boog yéen ngeen gën a booloo parce que dañoo gis 100 pour cent bi léegi bawol bi. Hmm. am na doole trop. am na doole bennoo bi lan la. waaw bennoo bi ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bawol ñoo bokk benn dëkk waaw. ñëw Dakar ñëw di daan suñu doole ñëwaat fii ubbi ay écrit def ko 100 pour cent ñun ñëpp ay mbokk la ñu. waaw loolu moo tax ku ci xew xewle ñëpp dañuy ñëw jàppale la lool la waa mais du leneen. Wuli Do mu ngi fi. daa am fu mu teewul gisuñu ko lu nañu dem quoi daa am fu mu dem ko waa mais moom xam nga bu fi woon moom moo fiy jiitu. mais déggante nañu rek lépp nice. waaw ñu gis ay mbër yu am tur ci bawal. ñu mën a tudd sax ñaari mbër. muy mbay guy gi. ak njaaxum. 100 pour cent bawal. waaw. ñoo ñooñu ñëpp ay champion lañu. waaw xëy na open press sax des fois mën na la bett affaire yooyu gars yi dem ku mel ni wuli doo xam nga man moom ñoo bokk benn papa te gis nga teewut. kon ñeneen itam bu ñu teewul itam xëj na daam ci yeneen yitte yu ñu ne quoi. ñuy wax ne Kewel dafa tëju loo leen di wax. dafa fermé wu trop. fermé wu maanaam amul yitte. loolu ay wax la rek. Kewel gars yi comédien lañ koy wootee ku ñuy wootee comédien kay xam nga ne. amul yitte kooku ñàkkul yitte. Ah, kon comédien mooy la ah maa ngi la koy laaj. sa digganteeg Bour Sine. déggoo li ma la wax. Bour Sine sama doomu ndey la sama xarit la ñoo bokk lépp. amuñu benn jafe-jafe man ak moom. yaa ngi dégg boñ ak Lamine ñoo dëkk dalee leen ñu laalante mais du dara. gis nga ko open press bi ñoo def lépp. nga war a bëre ji diggante Bargny ak Médina dem Bargny rek laal jaar fi ñuy jaar jargandalu dem arène ba daan si jotee. côté mobilisation bi ak biir yi ak jàppale baal ba suur ba amagun nañu huit camion kaar yi nag moom waxaale wu ma ko woon. Ah waa Bawal di leen wax ñu yokk ñaan rek. di leen talal loxo di talal sama mbokki séeréer yi yëpp loxo xam waa Bawol waa Touba. waa Sowal xam nga waa Palmarin yëpp maa ngi leen di woo ci kombaa bi ñu jàpp ci waa Ngunjaan. ñu gis li xewan ci stade bi diggante Alioune Seye ak ñàkk euh, jariñu nga war a jóge fii romb yëmbal romb koñam dem dem bari ñi looy wax ci wàllu. ñun moom dañuy dem rek. ñun moom noo viol kiiw nu violence ñu yaacu. violence ñu dañuy dem bëre ñëw mais lam bi daa leer xam dañuy takk dem bëre ji yàlla may nu ndam ñu ñëw xeexuñu xuloowuñu waaw suñu supporter moom nice. xool ñu lay waaw maay. wala dina loolu moom yàlla rek a xam nag waaw. asa ci bëre lay jeexee wala ci xeex. ñun xam nga bëre wu ñu mbapat bu doon bëre simple da nga naan dama koy def bii kale daan ko mais bëre door la wax mën naa jeexee fu ne. mais man li nga fii da ngay dem ba foofu doo man xam nga boo mënee bëre ba pare moom bëre du la bet bu ñu lay yéexee sax nga bëre man loolu jaaxaluma. waaw non dañoo gis moo jaax. Mhm. nga ñëw comme ni ko sama naataango waxee bëre woo xeexuloo. mais loolu laaj combat day am mot de seex ngiraan xeex na bëre na bëre xeexut ñu daan ko noonu la lam demee rek dama lay jox exemple foofu rek. xeexut bëre ñu daan ko comme noonu la demee ci man rek mais du dara di ñaan yàlla mu yem foofu rek. mobilisation bi wax naa la ko léegi. ku gis mhm. euh, dafa sori. waaw mooy waajee mobilisation bi ak supporter yi. gars yi ñuy yàgg di dem samay combat yi ñëpp pare nañu pour suuru lamb ji ñëw. waaw pare nañu lépp daal le suur si daal la waajee comprendre. waaw di sant ñi ma jàppale ci combat bi yëpp xam di sant sama gars yi ñoom safal ñoom. Cheikh Fall Marley ñoom ñagas Omar xam nga ñoom Baye Issa xam nga ñoom Lamine waaw di san ñoom Sall sama gaay yëpp daal san sama mag yi ne itali xam nga ñoom Alpha Ibrahima ñoom Aliou Aliou Sung ñoom ñëpp jàpp nañ ci combat bi waaw ñoom Assane ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di sant waa Medina bi yëpp nag waaw parce que ñun Bawol lañ dëkk mais Medina la ñuy présenté waaw ñu ngi sant waa Medina bi yëpp mënu maa lim seen tur waaye ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen woo ci combat bi ñu jàpp ci waaw.